Thank <laughs> you. toujours dans votre actu du jour de ce 6 juin 2024 suñ fa jógee dañuy dem fële ci redressement fiscal bi nga xamante mo téggu jamono ji ci ndoddu groupe de presse yi kii di avenir communication di Madiambal Diagne moom dañu daal di bloqué ay comptes tecc ko par ñi nga xamante moy fisc ba nopi daldi fay jël 91 millions ci biir loolu nak amna na ñoo xamante indi nañ ci seen xalaat nañu déglu ci dellu siwaat yore da wuñu fay fay ñu waa bisimilah ñëwal ñu ni len dem len ngeen fay hmm. Madiamba Diagne it bokk na si ñi yoreel moom it saytu nañ ko ba dafa yoreel dafa war a dem fay nañ ko wax ñëwal nga fay wala ñu ne am na dogal boo xamante ni impôt jël na ko mboolem groupe de presse bu am nañ sa compte ba nga fay ba pare mhm. mais benn benn la journalam ñu tëj compte am bàyyi si des loolu man ànduma si nañ tëj compte yëpp wala ñu tëjji compte yëpp ni ñëw leen fay ku si bañ ne du fay nag ñu doog a wax ay waxam mais benn compte boo xam ne mi ngi windeelu fi ne nii wër waruñu ko mën a bàyyee te man naa ni kon tey yéen kon ñoo déggandoo analyse boobu nga xamante ni ñu ngi ko defee ci plateau wal fajiri kii nga xamante ni mooy Assane daal di ci indi xalaatam muy analyse boo xamante ni dañ ci war a ànd ak moom képp koo xamante ni da yor entreprise di liggéey ci Sénégal danga nga war a fay lii nga xamante ni mooy redressement fiscal amul ma Samba amul ma dem ba a war a fay amul maison de presse amul leneen mais niñ ko defee moo ñaaw. su dee tey entreprise yi dañu amal li nga xamante ne mooy redressement fiscal di ay impôt état du Sénégal je crois que dañu war a xool ñëpp ñi nga xamante ni ñoo amal état du Sénégal ñi ne leen ñëw leen ngeen fay suñu ñëwul fay ñu yónnee leen avertissement suñu jëful avertissement boobu dem ba ci biir ñu soog a utiliser les derniers moyens daal di bloquer ay comptes mais tey mën nañu jàpp ni redressement fiscal bu jëm ci wàllu entreprise de presse ngi toll ci quarante milliards mais quarante milliards yooyu soo ko xaymaa trente trois milliards entreprise la yoo xamante ni ci état bi la ñu bokk ñoom ñoo ko yoral état du Sénégal RTS état bi moo fay nommé directeur général ku nee Soleil état bi moo fay nommé directeur ku ne APS état bi moo fay nommé directeur kon yaakaar naa ni ñooñu tey aussi dañu yoral état du Sénégal lu toll ci 33 milliards. ci biir quarante trois quarante milliards yi ñetti entreprise yi nga xamante ni ci état la ñuy dépendre dañu yoral état trente trois milliards entreprise privée yi yoral état sept milliards kon tey su ñu demee bay tëj compte je crois que compte ñi yor ñëpp la ñu war a tëj wala ñu tëjju compte ñëpp comme tëjuñu compte RTS tëjuñu compte APS ñu compte Soleil tëjuñu compte yeneen entreprise yi yoreel yi donc li am solo dañu waroon woo Madiambal Diagne ñi ne ko kaay nga fay Madiambal Diagne su ñëwul fay ñu yónnee ko avertissement ba ñu xam ne que ñii kat def nañu li leen war balaa ñuy bloqué compte yi mais suñu xëyee xëyee tëj benn groupe dafa mel ni acharnement la wala chantage wala règlement de compte donc on n'est pas d'accord que pour que nit di liggéey te du fay impôt ñëpp a war mais nañ ko jaar la ci yoon ban ko règlement de compte Nous ñëpp yam au même pied d'égalité soit nous ubbi compte soit ñu tej ñi nga xamanteni ñu ko ñoo yoral euh, état bi xaalis ba ñu fay ñu sokko bi donc je crois que lolu moy règlement lolu moy yoon ñu xam ne que ñepp yam ci li nga xamanteni moy règlement état muy analyse bi nga xamanteni ni Assane def nako ko je crois que sénégalais dañu wara and ak mom à 100% ken cent kenn warul ne entreprise de presse warul fay li nga xamanteni moy impôt donte Macky Sall jëloon na engagement pour bal len ko ñu yobbu ko ci ministère des finances mais état continuité la kon nouveau régime bi su ñëwee comme Macky Sall décidé won na lolu ci jafé jafé yi nga xamanteni ne këru taskat xibaar ñu koy dund donc état dafa waroon continuer ci loolu waye tay su ba tourner jëm ci Diagne ku nek position Diagne ak ñi nga opposition ak pouvoir donc da fay daldi indi ben genre louche En xamanteni da fay melni règlement de compte la en tout cas su dañuy dal nañu compte de su dañuy ubbi nañu compte en tout cas la Sénégalais di xaar ci mais pas des règlements de compte ci ay <laughs> Bye.